dama gëm ndaw boo xamante ne da nga bëgg sa réew di ko xeexal pas sa intérêt loolu laa gis ci Bougane ba ko dalee seetaan ba tey li ma gis ci moom mooy askan bi mais du intérêt parce que bu ci intérêt bokkoon campagne bi passé di ko battre sonn ci ñàkk ci alalam te bokkul ci élection ñi ci bokk sax moo leen tax campagne te slogan bi mu sulli moo leen gën a moo gën a tax ñoom ñu gañe liñ gañe kon waroon ngeen ko jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax muy président Bougane Gueye Dany yéen waa Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal war ngeen ko jaajëfal mais gisuma kenn ku des vidéo sorti jaajëfal Bougane Gueye Dany mais bref amul problème respecté nañ seen choix mais la vie lenn kese la xeex la ngëm-ngëm la pas-pas la moo lay taxa jëp mooy taxa dem fi nga bëgg président Bougane nag dama koy xoolee ma ne mooy mbër yi nga xamante ne daan leen taxu ñu bàyyi la dañ dem ba sa biir daan la fa doog a ñibbisi foofu rek laa koy xoolee parce que dafa nekk nit koo xam ne dafa am courage am ngëm-ngëm xam fi mu jëm gaa nag ay policiers mën nañ ko koy xañ garaawul ñun du ñu metti parce que bugaan du ñoom ñoom du ñu bugaan parce que ki nga xamante ne ñàkk doomu aadama ngay dundee bokkul ak ki nga xamante ne. ngëm-ngëm la am pas-pasam ngir jóg ngir defar Sénégal te ñi fi nekk ñu tuddee ay di politiciens depuis 1960 ba tey benn intérêt Sénégal taxu leen fay jóg di politique amul kuñ ci xañoon tey doo dem du campagne xam ngeen ko yéen intérêt Sénégal taxu leen a jóg seeni intérêt yi bopp moo leen tax a jóg bàyyi leen ci xel bu baax nag fii Sénégal respecté leen Sénégalais yi ak président bu moon mën di doon nag respecté Sénégalais yi bëggal Sénégalais yi lépp lu ñu soxla naaj guddi bëccëg defal leen ko ñun loolu lañ bëgg ci président mais bëgguñu président boo xam ne dañ lay fal nga fàtte yow li nga doon dem ci leneen gëmuñu loolu maa ngi jégoon nag su fekkee wax naa fi loo xamante ne naqari neexul lan jégal bu baax a baax su fekkee tam wax naa fi loo xam ne am na njëriñ fan nañ koy jëriñoo ñun ñëpp te mu loogu wasalaam